merci ma. wolof la ñuy làkk de. maa ngi leen di fay. maa ngi leen di fay. sa présence li nga xamante ni moom mooy événement bi. waaw nekk euh, Viviane suñu mag suñu yaay donc on est euh, on la suit depuis qu'on est toute petite on a grandi avec euh, le Jolof Band donc c'est c'est notre génération on l'aime beaucoup et elle fête son anniversaire pourquoi pas. un petit message euh, envers euh, Viviane parce que gis nañ ne anniversaire ñëpp témoignage lañ def. Euh, je la connais pas personnellement mais je pense que c'est une dame très gentille ah kanam li ñuy li ñuy wax lu feeñ ci xol feeñ ci kanam. c'est une c'est une dame très gentille et voilà quoi ñu ngi koy ñaanal gudd fan wér gu yaram yàlla wéral voix bi et puis voilà j'ai ramené ma copine gabonaise. lan nga yeg si yëg-yëg bi. non yëg-yëg bi moom il ma sama farab dem ma. feccee ko sama mariage. merci beaucoup merci la gabonaise. comment elle est actrice en plus. waaw actrice. Ah. c'est comment le nom. Euh, je m'appelle Randa. Randa oui. Euh, votre présence à cet événement. Bah, je suis juste euh, venue accompagner mon amie. Euh, je connais pas forcément les chansons mais elle m'a dit que c'était une bonne chanteuse et tout, donc j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc euh, voilà, quoi, j'accompagne et je vois comment ça se passe, c'est tout. Ah, c'est une très belle femme, en tout cas, ça se voit, c'est une très belle femme. Et c'est pas mal, la soirée, elle est pas mal, en tout cas, franchement. Merci à vous aussi.